j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax man moom maa ngi sant yàlla alhamdulilah boo sama gars yi tey nag dañuy ñëw wax ci waa Def Music parce que nag gis nañ ni temps yi formé nañ label bu mag recruté ci rappeur yoo xam ne vraiment kenn dootu leen présenté kenn fii ci biir Galsen tey ci ñoom la ñuy ñëw wax surtout ci clip bu ñu génnee intitulé léegi nag mais nag avant ñuy xuus ci débat bi pour vous expliquer et détailler voyez s'il vous plaît vous abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et n'oubliez surtout pas, surtout pas je vous dis, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Let's go nous dit l'intro leg leg. Alors on est de retour les gars pour continuer la très belle vidéo qu'on avait commencée.

pour taxawal équipe bu mag ci bir game bi non mais pour mën compétir ak yeneen label yu mag yu fi nek té nak boo leen xoolee ci bir année 2020 bi label yu bëri formé nañ ci sen gang recruter ci ay boy pour samp sen équipe pour ñëw concurrence ak yeneen label yi ak pour job pour taxawal lu rëy ci bir game bi au-delà de tout ça boo leen xoolee aussi ci bir année 2020 bi ci lañ xamé wa bour Music te nag boo fa demee di nga fa fekk gang bi di Akatsuki Gang Millionaire Junior yaa Kid Veli yaa Sosa et Dom Master Boy nga dem aussi néegu rap studio 2020 bi lañ am gang bu fa nekk te boo fa demee dinga nga fa fekk gang bi di Akatsuki SN muy LMN xel ñaar yaa Mr Cash ak Tala bi ak Khalil pareeguñu naka parce que nga dem label bi di KBC. donte xaw nañoo yàgg mais ñoom ren lañ soog a xam ne am nañ équipe bu mag te boo fa demee di nga fa fekk Ngaaka Blindé aka Boy Guédiawaye mata di mat ak Koul Lams yaa sori l'officiel ak Nara juuf boo demee aussi Reptile Music di nga fa fekk geng bu taxaw ak jéggi raay di nga fa fekk geng bu taxaw kii di Paco Briz fa la nekk El Jazz Karbala xarit dëgg Ndobin et autres kon nag sama gaay gis ngeen label yi ma leen fi limal yépp ay label lañ label yoo xam ni dañoo am gang bu mag ci biir game bi te nag dañuy génne ay projet yoo xam ni pour artist label bi ñoo koy bokk job ko léegi nag ngeen xool waa Def Music ñoom dañoo ñëw aussi taxawal seen label artistes yu fa nekk ñoo One Lyrical Hakill Authentic Zeus Kao Prip Dip ak Cëg Kao Prip moom moom personnellement moom la ñu xamul woon ndax signé na fa ou pas mais léegi moom gis nañu signé na fa ak seen boy bi nga xamante ni nii mooy cëg ñu bëri nag au fait xamuñu ko woon mais grâce à Def Music ñi ñu commencé nañ koo xam reconnaître talent bu mu am te tamit di ko bàyyi xel. mais nag ñoom nu ñu lancé seen équipe pour xamal public bi ni Def Music taxaw na léegi ak équipe bu mag ak artiste yu mag mooy dañoo ñëw automatiquement génnee benn projet boo xam ne c'est intitulé Game ñoom ñëpp ñoo ko bokk dóor ko nekk nag projet boo xam ni comporté na onze titres génné nañ ko depuis le 11 décembre passé mais nak sama gaay projet bi lén la manqué moy promo avant sortie bi parce que nak on a bien vu que ni label bi bi moy premier projet kon dañoo waron def promo bu doy avant sortie bi parce que dañoo wara a lu carré pour ñepp mën leen bàyyi xel ci mois de décembre bi surtout aussi ak ni mois de décembre bi xaté ak label bu tolni de Def musique on a bien vu te dañoo wara xamné album dafa laaj promo bu baax sax et en même temps surtout sen boy bi di cëg donte amna talent prouvé nako aussi ci projet bi mën na rap te wane na mais waroon nañ ko présenter gars pour ñu xamné signé na fa gars yi mën découvrir mën ko suivre mën wax ci mom bala projet bi di génn mais nak aussi peut-être ñom non lañ ko gissé non lañ ko bëggé en plus projet bi bañ koy job ci durée bu gatt lañ ko joobee. Authentic Zeus mi ngi ko doon wax ci benn interview mais nag ma xamal leen ni projet bi ñu génnee ni c'est juste un lancement pour xamal gars yi ni Dev Music am na équipe pour xamal nit ñi ni Dev Music pare na pour doon label bu taxaw fii ci biir Galsen Dev Music moo nar a diriger Gemb ci biir année 2021 bi avertissement dong la pour yeneen rappeurs yi ak yeneen label yi léegi nag ce qu'on faire mooy ñu xooli seen vidéo bi ñu mujjee génnee intitulé léegi nag bokk ci seen projet bi ayca léegi nag nañ dem xooli léegi nag let's go. dafa it comme bonjour bonsoir dañ ko miis waxoo waxu xaalis bye bye au doo ñu gis rab gaal seen kaaneeg poobar ñoo ko si wis explosé loo ay carrière fii mooy sa ko si moi léegi nag léegi nag waaw sama gars gis ngeen tuuti si vidéo bi c'est intitulé léegi nag et sama gars yi léegi nag meen wala boog gis ngeen équipe Def Music bi c'est cinq artistes ils sont cinq artistes mais nag sama gars est-ce que gis ngeen Hakill Hakill qui est un artiste rappeur complet avec un style très ak couplem bu fees dell ak ay punchline bi may prise sound kenn newul woon au courant te sound bi day génn masse ñëpp noo mais il est fort ce mec mais nag je pense masse na leen yéen tamit ci biir sound bi mu ngi wax affaire yeneen label yi mu ngi naan traversé ñëw yàgg sa tim lay rendi xatit lu leer la wax nag artiste moom bu dof dof lu ba dugg ci ñoom yow sa yow ak sa label lay boole ren di xatit nga dee nag benn yoon mais nga jóge ci xëykil nga xool ki nga xamante ni moo di authentique Zeus moom yaram bi yépp dafa fees dell ak talent lyrics yu riche en plus boo leen seetloo ni mu duggutee ci sound moo gën a nice non mais je et en outre moom tamit avertir na gars yi nee na leen booy buñ ngemb ci gem bi bu fi ñëwee forcément ma defal ko PD laa ilaha illallah gis ngeen aussi moom avertir na gars yi pour ñu bañ a laal def musique non mais ñi tàng nañ ils sont vraiment chauds mais kenn du cëg nag sama gars yi ce que gis ngeen dugg ci booy bi moom mooy genre rappeur yooyu noonu nga xam ne ñoom lu leen neex la ñuy wax nu mu gën a saltee rek noonu la leen di gën a neexee ci digg bi la ñuy jaar ofet fait moom mooy rappeur yu sadik yooyu nga xam ne lijjantiwuñu yenn wax yi parce que nag je vous dis quelque chose fii Galsen am na looy wax wala yenn image yi ngay wane gars yi dal sa kaw ni la fii Sénégal la dañoo am suñu culture mais nag booy bi lu nit ñi ragal a wax lu nit ñi ragal a def moom lay def te di ko wax moom li ma ci gën a neex mooy dafa ñëw rek bokk wane ni bu dee rab kenn dàkk ko ko bu dee salteel kenn dàkk ko ko c'est juste que ni gars yi dañ koo xamul woon mais ci biir projet bi wane na ni mu ngi ak lépp lu rapport war a am. 2021 bi nag la gars yi di comprendre kon pare leen parce que booy bi vraiment avenir la ci biir game bi. après nag nga xool ki nga xamante ni moo di One Lyrical rappeur la boo xam ne il est vraiment productif lyrics ak flow bu raar la yor mën a rap te lépp a ngi ci moom. featuring moom boo ko ci woo xoolaat ko bu baax a baax parce que daf cee aay non mais da ciy dem ba jeex ci couplet bu gàtt door na ci punchline yu doob ay saraxel neen du tax nga toj. booy bi nag la ñu woowee bibliothèque gu rap galsen xam-xamu bind ci boppam la am macha allah samp na équipe nag donc rendez-vous en 2021 dina taar incha allah li ma gis nii moom en 2021 game bi dina yëngu lool sax après One Lyrical nga xool ki nga xamante ni moo di Kaw Prip Dip moom am na talent mën na rab am na isil te lépp mu ngi ci moom moom nag si ñëm biir biir def musique bettul kenn mais boo leen en 2019 et en 2020 même niveau la nek, yegul wàccul man nag personnellement je sais pas lan la mais de toute façon li ma seetlu rek la wax mais nak amna yakane yaakaar ne dina rajaxe 2021 bi ak Def Music donc ñongi tok di xaar ak doole ok sama gars yi gis ngeen vidéo Def Music bi si lañ doon wax wax sen équipe buñu ñu samp pour taxawal label bu mag fi biir Galsen gis ngeen recrutement yu bees yuñ def Ci moom am talent wane na ko ci duire bu gàtt cas prep dip kenn dootu ko présenté fenn One Lyrical Haikyll Authentic Zest tamit pareil seen projet bi aussi nice na trop mais projet la boo xam ne lenn moo ci manqué muy promo avant et après sortie bi parce que boo dégloo projet bi dafa bëri couleur et bii mooy seen premier projet léegi nag lii moom avertissement la rek pour gars yi def attention bàyyi leen xel ni ci biir 2021 bi du yomb donc nak je vous dis bépp label muy bu mag ak bu ndaw parel te xamni 2021 bi du yomb ak waa def Music daño paré pour sul label yépp dina nek ou pas avertir nañ len donc nak passons aux questions première question no len gissé projet waa def Music bi intitulé Game deuxième question no len gissé sen sound bi di légui nak et troisième question lo len ni conseil comme il est un jeune talent et enfin la quatrième question comme que légui samp nañ sen label bu mag leneen lan lañ mën xaraat ci ñom à vos claviers bàyyi naamu tëmb lii c'était votre très chère et adorable Sister Kenza n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager et surtout de liker kuma ma soxla tamit mën nga ma envoyer message ma page Instagram Kenza l'officiel wala sax sama page Facebook Kenza 221 portez vos masques utilisez les gels évitez les rassemblements Fagorou Morgan, gën faju nañu jël suñu précaution bu baaxa et je vous souhaite à tous de passer une très bonne fête de Noël bye bye à la prochaine yal ñëpp am jàmm et gros bisous à vous